Bacili, bu Pikine ñu ngi dund mhm. man amon na ay temps kon CDP yëpp mais wa PDS man lañ bëggoon ci seen xol mhm. bëgg ma ñëw ah monsieur le président de xagn nga ñu ko ni rek man duma transhumé <laughs> yaa ngi xañ nga monsieur le président de xam nga ah. bëgguma en général di wax ci man mhm. mais Sénégal moy tollu fu nga xamni boy jël prise de parole il faut ngay wax. il faut mm-hmm. ngay joxe say référence pourquoi man may wax. Mm-hmm. dégg nga wax léegi tey lu tax ma ne Aliou sàll moom moom warkat la traiteur la. lu tax ma koy wax. Mm-hmm. mooy privilège yu APR yëpp am na ko. waa yow Macky sàll waaf na. mu nga Maroc ut na liggéey France. yow waaf nga yow. nga ne yow bàyyi nga. yow li ma lay wax li ma la yàgg wax mooy. Mm-hmm. ba ngay dem géej waaye kenn falu la. Mm-hmm. parce que rakku président nga moo tax nga ñëw ñu parachuté la. Mm-hmm. ay nit yoo xam ñoo la njëkk fuuf. yàgg gën a si parti bi gën a sonn si Macky yow ñu parachuté la. ñu dem ba teraanga gi jeex bi teraanga gi jeexee danga nga waroon gore yow. taxaw xeex. mobiliser nit ñi ci biir opposition mhm. mais nga ne yow paré nga ci Sénégal mhm. ginnaw bi nga ci amé lepp li nga ci waron am nga ne paré na je mets mes activités en gel mhm. légui ñu doon xex ndax yow motax manal mën leen li tax li tax ma wax tay dama ñu nekk fi tay di wax di sagal gaay Nyinek ñi fi nekk tay ñu xamni ñomit Ousmane Sonko ak keneen ak keneen bës buñ joggé au pouvoir ñoom tamit nii lañuy ñuy waafee. ah léegi ñoom loolu est du gàddu àq. waaw mais dama ne dama ne. moom moo dama ne est du gàddu àq peuple bi. Mhm. am na ñu doon doxal Aliou Sall. bien sûr di ko xeexal di ko saagal. Mhm. Macky Sall daw na ñu ko doon saagal leen bàyyi Aliou Sall bàyyi na. Mhm. Marème Faye Sall ñu ko doon saagal gisatuñ ko. bàyyi di sagal nit ñi sagal leen seen bop amul jëriñ daal amul jëriñ parce que politicien bu ne bés bu fi joggé day waaf. Mhm. su mënul genn dëkk bi xoolal. Mhm. kërëm lay tok ut gardien bu ngand ku ñew mun la waji nekk fi. nekk fi bu leen dal kenn. Mhm. mun nga nak and ak nit man de andeng ànd ak Ibader Thiam. bu mu addu àdduna. mosuma jangal saga té man amon na xelu ni kenn saga pour lan. pour gagner quoi. waaw. Mhm. man damay ànd si li may ànd wax argumenté convaincre su ma mënee convaincre. boo saagalee ni sax mu jox la dara sax nga téye sax dalay yàpp. léegi. te mhm. man li may wax chaque jour. Mhm. mooy doomu Sonko saagawul. jabaru Sonko saagawul. jarbaatu Sonko saagawul. ñoom ñoo ci am. ak Malick Ndiaye ak waa famille mhm. ak Jomaay ak waa famille mhm. ak Pape Alé Niang ak waa famille mhm. mais yow amoo ci dara mais yow yaay jël sa gàddu saaga yaa ngi dégg jënd sa connexion ah Ousmane Sonko taal otom teg ko clim ba mu sax sans garde du corps ne fekk ma Colobane ah eh, te yow amoo paasu deux cent boo ñibbee kër ma sax mais yoo tam mais non non ma bëgg sénégalais yi mm. ñu muus mm. am na xoloot ay vrai Pastef mm-hmm. yoo xam dañ daan cotiser mm-hmm. kilifa bu mag bu ma ne man opérateur économique laa mm-hmm. li ma financé si projet bi kenn xamul li bari te man amul benn responsable Pastef bu ma xam Mm-hmm. mais damaa gis ni dafa mel ni tey ànd toog gars yi. Mm-hmm. quest mm-hmm. mu comprendre. mu comprendre mooy xam nga lan. Doudou Coulibaly dañ koo jàppee woon militant passif te mosul nekk militant passif. lii ak lii moo tax mu doon doxalee. par parloo defu ko. defu ma ko république. ñoo naan da leen a leen. léegi la nekkoon démb. bu commencé waatee tey. Mm-hmm. damay taxaw. Mm-hmm. même su ma waree taxaw. maa ngi leen di jéggulu mm-hmm. comprendre nga la ah? man damay nangu defet. mais li ma li may wax mooy li xew actuellement ci Sénégal du Ousmane Sonko lii la jaayoon. d'accord bañ koy défendre. non du lii lañu ñu jaayoon. léegi nag nit mun nga gore. nangu ni non am naa defet mm-hmm. yaa ngi dégg mais nit tamit mun nga ñëg mm-hmm. ne non liñ si sonn yëpp mun ñu toog fii ak deux mois gars naan affaire bi baaxuloon man nag dara liiwu ma mm-hmm. comprendre damay nangu defet damay nangu ni xoolal loolu mooy simplicité sax xoolal bokk naa si ñu tooñ sénégalais yi maa ngi leen di waaw comprendre nga la mais tamit li amoon bu amaatoon maanaam waa kër Macky Sall yi man dama jàpp ni ñoo yàq réew mi. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. te xeex mu leen xeex du mu ko regretté. daan tamit du ma xeex pour installer yeneen nit yoo xam ne dañuy def la même chose. Mhm. après may seetaan di ruux. wala may làqatu. ku nekk si yoon daal nga may ko moom jàmm. ku nekk si yoon daal nga teg ko si yoon. waaw loolu mooy république. waaw ah, loolu loolu mooy euh, euh, nit.